asalaamaaleykum lii am nettali la jabar bokk jabar bokk bu ñu waxee bokk nag dañ cey jublu koo xam ni yéen a bokk dara moo xam da ngeen a bokk pas-pas wala ngeen bokk jikko da ngeen mën a def mën a ànd nuróole lu bari ndax nit ki mën naa doon sa mbokk te fekk du ngeen bokk dara waaye nit ki mën ngeen a bokk dara te du doon sa mbokk golo la woon ak baayam ba mu demee ba am fanweeri at mu ni baay man dama bëgg woon a takk jabar baay ji ni ko kan nga bëgg mu ko man daal xool naa ci tund wi yëpp waaye xar daal laa bëgg moom laa bëgg takk ndax seetlu naa ni xar bët yi rëy na nopp yi gudd na te taaru na lool man moom laa bëgg bàyyi ji ni ko ah sama doom tee ngaa jéem a takk golo ni yow bu ngeen bokkul deret sax mu doon golo gu xonq wala gu ñuul wala gu weex muy golo ni yow rek golo gi ni ko baay man daal xar laa bëgg baay ji ni ko kon baax na demal waxtaani mu dem ci waa kër xar mu waxtaan ak ñoom wax leen ni dama bëgg seen doom waaye ñu taksi koo taksi koo taksi ba mu son lu nañu laaj ko ko da ngay andi lii dangay ngay andi lee da ngay andi waaye golo xam na ni amul liñ ko wax mu découragé dellu ci baay bi ni ko bàyyi man daal dama koy mujjee bàyyi ndax ñee liñ ma laaj awma ko man awma xaalis te lu na laaj nañ ma ko te mënuma kaa joxe kon damay mujjee takk golo rek ni man bàyyi ji ni ko ah man de waxoon naa la ko mu daal di dellu ci waa kër golo soxna sa waxtaan ak ñoom ñu may ko ko mu sëy ci ci kër gi ñu seetu ba am benn doom benn bis golo gi ak soxna si ak doom ji ñu toog ci ëtt waxtaan ab xaj bu rëy tàbbi ci kër gi rek daw wut si leen waaye seen baay tiit gi mu tiit moom golo gi telul doom ji ak jabar ji dafa jékki-jékki rek tëb ni ñoloŋ ca kaw garab gi ci car bu sori ba mu ko defee ba mu dal ba ci kanam mu daan mu ni man de bàyyi naa sama doom ji ak sama jabar ci suuf ndax tiit yër di leen xool rek gisul dara mu yuux ba ca kaw xaj bi lekk na sama doom ji ak sama jabar ji waaye nes tuur rek doom ji ne ko bàyyi ñoo ngi nii fekk ni ñoom ñaar ñoo ko njëkk a yëg ci garab gi car bi ci kaw bi ko tiim ci lañ nekk gole gi toog ba ci kanam mu xalaat la ko bàyyi ji waxoon ni ko booy takk takkal gole ni yow ndaxte mu ne tey jii su fekkoon damaa takkoon xar bu xaj bi ñëwee de dana ko lekk takk gi ma takk golo nag moo tax ñoom ñëpp raw nañ mu xalaat ni kon waxi mag mu jub jëfe la sant kon lépp baa ngi noonu ndax lii mu wax ànd ngeen ci wala àndu leen ci ak nu ngeen ko gisee képp ku ci am xalaat ci li wax jabar mbokk wala jabar bokk mën nga ko bind ci commentaire yi ñu waxtaane ko jërë ngeen jëf ba beneen yoon